الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم أيها الإخوة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتزام تعاليم الكتاب والسنة فبهما ننال سعادة الدارين الدنيا والآخرة بقين سنت يلا سبحانه وتعالى نيونغي جولي تشينغين جيمبيندي سنو صلى الله عليه وسلم نيونغي نيانال واكرم يو باخي اك صحابه يو تدي ak képp kuy góorgóorlu ci sunnaam yàlla nu ci yàlla boole mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi nekk ci jamonoy nawet jamonoy nawet nag am na mbir yu bari ci lay xewe ngelaw yu am doole léeg doomu aadama loru ay dënu yu am doole ay melax yo xamne ne leeg ñu sànni ay jum fu ñu dal massacre ko dañuy ray nit màbb këram taal yi taw ñu am doole yo xamne ne doomu aadama ci bu baax a baax yooyu nag di xew ci nawet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wir doom yu bëri yooyu nga xam ne mënuñu ko jeexal am na ci yoo xam ne dakaa jëfee jàngal ko saxaaba yi ne leen jottali leen ko xeet wi mais yooyu min ko jàngale ngir ay xew-xew bu xewee ngeen wax lii bu nangam xewee wax leen lii bu ko defee nga góob ci tiyaaba bu dul jeex bokk na ci yooyu nag xew-xew yii di xew ci nawet ndeke nawet la cay xew occasion la bu rëy ñeel jullit bi nga xam ne mi ngi gëstu sunna yonent bi salaa sallam nga xam ne doy na ko tool ba du ko génn di dem ci tooli bida jàngale na ci muy ay jaamu yàlla làmmiñ muy wirdam yooyu mais ngir ay xew-xew bokk na ci xew-xew yi xew ci nawet jàngale na looy wax boo bégee ak boo tiitee loolu day xew ci nawet xam ngeen ne béykat bi nga xam ne dafa nawet dafa jege mu waajalal toolam mu ut jiwu bu baax kooku bu xiinee day kontaan bu tawee mu gën a kontaan kooku yonent bi salaa sallam jàngale na mu ne boo gisee lu la bégloo na nga wax lii lima rawahu alxaakim bi sanadin saxiix anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واو الحاكم نت بن سيسان الدوير من ينتبه صلى الله عليه وسلم نكون نبو بيسي بكو بيقلو فنا بيكت بموم لولو أكازيوم لا لي لي واح مغوبتين tiyaaba bu dul jeex maa ngi sant yàlla buur bi nga xam ne ci xéewalam yu bari ci la ñuy amee lépp lu baax aa wante bey béykat bi am na beneen mbokkam boo xam ne dippi nawetu daaw ay taa ndox mu taa mi ngi des ci biir këram suuf saa ngi tooy xepp depuis nawetu daaw kooku bu tawee rek suuf si daa màndi kay day ndox mi day jóg rek kër gi day fees néeg yi fees gis ngeen ko ci télé yi seen mbokk yi nekk ci zone yooyu nga xam ne noonu la mel da xam ne biir këram ay mool lay tegale mais biir néegam pour mu àgg ci lalam ay néeg lay tegale sinon day xuus ba ci kaw lalam kooku bu xiinee day tiit du kontaan de waxantumaa nag bu commencé taw mu gën a jaaxle kooku yonent bi indil ko wirde woo xam ne lu ko tiital rek lu ko indil ñàkk kontaan rek bu waxee lii mu nekkaan njëriñ kese ñeel ko waa mi ngi noonu moo dina yonent bi salaa sallam ci même hadis bi ñu ne bu gisoon loo xam ne neexul ci xolam day naan alhamdulillahi ala kulli xaal man maa ngi sant suma borom ci nu lu ma mata mën a dal ak nu ma mën a mel muy lu neex ak muy lu naqari waaw bu ko defee mu nekk tiyaaba ñeel ñeel kon ñaar ñii nañu xam ne xéewal bu rëy mi ngi bi nag ñaar ñi ku ci nekk nawet dina la indil occasion bi nga xam ne ci ngay waxee kàddu yu sell yi nga am ci tiyaaba bu dul jeex kan moo ko jàngale mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne foofu amul werante njàngale moo féete kaw yépp waaw te boo ci yemee ci ngay jëriñu ci ngay nekk ci lu wóor kenn ñemewu la nee déedéet leneen lu dul loolu boo ne lii mu moo gën rek keneen taxawe fee weddi la ne la déedéet sama bos bi moo gën sa bos mi ngi noonu ah, gis nañu ñaari zikri yi mooy bu njëkk bi mbégte la ñaareel bi lu metti ci xol la ñetteel bi mooy az zikri indi indi simaa iraat ورؤية الصواعق لما رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد أو الصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ولما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد ترك الحديث إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته آه ñettel bi moy limu jangale li ngay wax boo déggee denu bi xaacu loolu bari na di xew ci nawet walla nga dégg melax bi ne tey loolu it lu muy xew ci nawet dënn bu xaacoo léeg sax tabax yi dañuy yëngu day metti bu dalee ci nopp melax nag moom defe naa me euh, defe naa ne nawet bi rek am na ay jum yoo xam ne rot nañu ba faagaagal ay mbokk ñu ngoog xew na ci nawet bi rek kon loolu it day xew ci nawet waaw ah, mi ngi noonu imam Tirmidi na kan moo ñu baaxe xadis bi mooy Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu yonent bi bu déggoon sallallahu alayhi wa sallam xaacu dënu mbala wala mu gis melax yi ne tey a ah, day naan allahumma laa taqtulnaa bi ghadabik wala tuhliknaa bi azabik wa aatina qabla dalik e eh, yow sunu borom ñu ngi lay ñaan bu ñu rey fekk li tax rey ñu da nga ñoo mere ñu ngi lay ñaan nga dimbali ci noonu nga dimbali ñu ci loolu waaw bul ñu alag it ci sa mbugal lan lañ lay ñaan nag ñu defal jàmm kàddu yooyu la yonent bi salaa sallam daan wax mu ànd ak dënu yi ak melax mais ndax ne ndax ndekete nañu imam malik nañu dem ci mu imam malik rahimahullah téeréem boobu nga xam ne tey ah, bu ñu bibliothèque bu l'islam ginnaaw alquran moo ci mag waaw imam malik nitu sunna bu rëy mu ngi noonu yàlla na ko yàlla fayal téeréem boobu dajale na hadis yonent bi boo demee ci foofu mi ngi nettali ci hadis bu wér mi ngi noonu boo xam ne ki ko baaxee xeet wi mooy abdullah ibnu zubayr yàlla na yàlla kontaan ci moom kontaan ci way juram mu ne moom it mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu déggoon dënu bu fekkoon ne day waxtaan day arrêté waxtaan kon nag yow it kii mooy sa royukaay yaa ngi doon waxtaan ataay bi di daw nga dégg asamaan si dënu bi xaacu kuppe leen waxtaan ngir roy yonent bi sallallahu alayhi bu ngeen paree nag ngeen teg ci la mu daan wax mu ne da daan wax سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته sell ñeel na denu bii di xaaj ba ñuy tab sunuy nopp ñun ba sunu tabax yi di yëngu ndeke denu bii day sàbbaal boromam kon sell ñeel na borom boobu nga xam ne denu bi da koy sàbbaal ngir di ko sant yusabbihu raadu bi hamdihi ni ngoom buur boobu nga xam ne malaayka ak seen doole xajuñu ci nit wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla paree sàkk suuf suuf yi ak asamaan yi ak li ci seen biir dafa jël buftu bi li nga xam ne moom lay tukkilee àddina mu dénk ko ab malaayka malaayka bi bu ëffee yaatuwaayu fi ngelaw li di génnee mook mook asamaan yeeg suuf si mën na leen ëmb xam nga ne ñi borom doole lañ de ah mi ngoow ñi nag ñoo ñii ci seen service bu borom rek la ñuy xëy ci la ñuy gont duñ ko moy mukk nit ak jinne kay ñoo dëgër bopp nit ak jinne ñoom ñoo dëgër bopp ndax malaaka yi ak seen doole xoolal kii rek nga xam ne mi ngi téye buftam di déglu ndigalu yàlla waaw saa yu ko yàlla ne ëffal bu ëffee rek àddina bi day jaxasoo yàlla moo ko nettalil boppam xeer yi dañuy buddeeku naaw suuf si xar géej gi màmma dugg ci jéeri ji nit ñi mel ni ñu màndi di mbëkk xeer yi di daanu ah yaay ji doomam bu gën a tuuti yaay doomam bi gën a tuuti di nam nga xam ne cofeel bu rëy la ko ameel même doomam bi mu jur mu mu fer bu laalee kii namp rek bu koy xët du ko yëg bu laalee kii namp bu koy xët sax mel ni juróom mais day sànni doom boobu fàtte dootu ko tal ponkal yooyu xoola kooku benn malaayka moo yor buftu allahu akbar ñooñu nag moo tax mu ne ah pour mu wan ñu ne war ñu jaamu borom bi war nañu jëfe ay ndigalam war nañu moytu ay tereem ndax yàlla loolu suñu njëriñ la de mais yàlla ñàkkul ñi ko jaamu mu ne asamaan si ñuy gis mi ngi baaje mu ne appati sama fa xuqa laha an ta'itta asamaan ci baaja na baaje mooy camion bu bu rëy yëpp lu diis buy daw da ngay dégg muy naan kii ki ki ndax diisaay mu ne asamaan si noonu lay def mais su neen su neen salaam mu ne ah moo yey baaje ndax boo boo yi asamaan si nga bugg a wàcc mu ne doo am fooy teg sa tànk béréb bu nekk am malaayka mi ngi sujootal foofu boroomam asamaan si nu mu réyee mu ne boo naroon a doo am foo teg sa tànk amul benn sibre lu dul malaaka bi ngi sëgg foofu di sujjoot yenn bi dàbboon yi bëri nañu am nañu doole moo tax yàlla ñàkkul ku koy jaam nañu bàyyi xel waa jooju borom buftu bi de ah yonent bi salaa salaam bi ko jibril laaje yawmal qiyaama kañ na mu ne loolu moom yow mi laaj an ki ko laaj yëpp xamu wante nag bésu àjjuma lay doon de ah ñun nag moom bésu àjjuma day jege ñuy préparer caaxaan yi ñuy def samedi mais kiram àjjuma bu ñu séentu rek dañu ne xëy na bii mooy yawmal qiyaam ñu beesalaat seen tur ñu gën a góorgóorlu ci ndigalal seen borom ñu gën a daw li mu tere bu demee ba jant bi fenk tey ñuy naan xëy na léegi mu ñëw xëy na léegi mu ñëw ba jant bi soo ñu ne a ah, kond bi xëy na bi ñëw la ñu préparé waat ñun nag moom yaa ngi gën a rek doo xalaat sax yawmal qiyaam te malaaka bi mi yor bi di déglu de yow sa yoon yaa ngi seet samedi bi looy def ci ay ñaawteef ci araam yaa ngi programme ban yére nga war ñaw nga mën a dem caaxaanee ko bokk ci yàlla subhanahu wa ta'ala mi ngi noonu imam malik ci sanad bu wér mu jële ci abdullah ibn zubayr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu déggoon xaacu dënu bi bu doon waxtaan day arrêté waxtaan mu daal di ne nag ah mi ngi noonu subhana alladi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min xiifatihi يلنن يلنن ما يدق أكتب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wax nañu it nawet jamonoy ngelaw la ngelaw yu am doole nga xam ne léeg bu ëppee ak dooleem léeg-léeg doomu aadama lorut te ngi ngelaw yoo xam ne bu ñu ëppee dañuy teggi toiture yi sànni ko am doole ñëppay daw dugg ci biir ndeke loolu it occasion la boo xam ne ah yonent bi jàngale na ci xeetu wirdaam yi wirdaam yu baax yooyu wirdaam yooyu nga xam ne ñooy ndono ñeel xeet wi loo xam ne bu ngelaw ëppee ëpp bu am doole nga daal di wax loolu الذكر عند الريح إذا حاجت لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها آه أبو داود النتلنا في سند بوير كيف باقي خيبي mooy abu hurayra abu daawuda moo nettali hadis bi ci téeréem mais abu hurayra yal na nu ko yàlla fayal moo ëpp la mu nettali jële ci yonent bi ci sunnaam sallallahu alayhi ne sunna yonent bi moo ñu mën a leeralal lislaam leeral bu leer bu wér bu yàlla bëgg ni ko yàlla bëggee waaw loolu moo doon mission mu jottali ñu alquran bi leeralal ñu bu yàlla ne wax leen mu wax mu won ñu naka lañ koy waxee mooy sunnaam bu yàlla ne def leen mu won ñu nan lañ koy defee bu yàlla ne fas leen ci xol yi mu won ñu naka lañ koy fas alquran jibril la ko yàlla di jox na ko demal jox ko muhammad sallallahu alayhi jibril naaw ne cëpp jox yonent bi aay yi yàlla bëgg mu jox mais maanaa bi loolu yàlla da koy sànni yonent bi direct jibril bu bu egseeg aay yi rek fekk yàlla yónnee na ko maanaa bi moo tax ñoom ñaar benn mbir la alquran ak sunna juz'un wahidun la yatajazza benn mbir la kenn mënu ko xar ñaar eh man alquran rek doy na bari na ñu sànku ci loolu xadis dafa lënt dafa am saxiix am mutawaatir am daif am mawdu caax loo coono yooyu ñun doy la nañu alxuraan doo dem fenn doo dem fenn ñaam ñaar fokk ñu am ci ndax yonent bi mooy leeralkat bi leeral yi yàlla moo ko jox alxuraan bi yàlla moo ko jox boo bëggul juum ci diine bi déglul mu leeralal la bi muy dund nag waaw bi muy dund loolu lu jar a préciser la borom xam-xam yi del leen teg ci loolu waaw yonent bi ba muy dund leeral boobu la yàlla garanti boobu la dem boppa ba mu pare yàlla ne li ma bëggoon nag mot na léegi kaay nga noppalu li ci des maa koy gardeel sama bopp génération bu ñëw dina ko fi fekk xanaa ku ku dumooyu uti leneen ma seetaan la rek mais yow li nga jàngale maa koy sàmmal sama bopp ba bésu bi may ne malaaka bi walal buftu bi kon ku juum ku tarxiis yaa tey yaa ko def sa bopp mais moo tax yow mal qiyaam walla yonent yàlla buy wax ak ñun ginnaaw bi mu ñu dumóoyoo nit di jooy yoo yóor yi euh, tàngaay bi nit ñi bay lap ci seen ñàkk ah ba bi safaatul uzma bi ko yàlla may ci lay ñaan ginnaaw bi yonent yépp joxe joxe ngantal yonent yépp bépp ku dul ñëw ñi ci gën a rëy garaat ñun xeet ni daw nañu ci ñoom ne leen dimbali leen ñu sonn nañu taxawaay bi yàgg na bés bi tàng na ñii ñu ngi lab ci seen ñàkk ñaanal leen ñu yàlla mu àtte ñu nag ku nar a dem safara dem ku narul dem noppalu ñoom yëpp dañoo nag ñi gën a rëy grade laa wax de ñu ne de ñemewuñ janoog yàlla ne ko ee eh, ngir yàlla ñemewuñ ko sax waxantumaa ko dul ñoom loolu ñun ñoo koy tëralal fii suñu bopp rek amul kenn ku baax ku wax ne mën naa nangam foofu mi ngoo kon euh, mi ngi noonu partenariat fi ma toll woon sax kon Abu Hurayra mu baax mi moo ñuy nettali bu ngelaw lu am doole amee yonent bi lan la ñu jàngal dafa ñoo jëkk dénk mu ne ngelaw yërmande yàlla la waaw yàlla moo ko yónni mission yàlla lay dox de mun na indi yërmande mun na indi safaan kon nag bu leen ko ŋàññi mukk yonente baa ngi ñuy ci yoon de ngelaw lu mu am doole doole lu mu yàq-yàq mu ne bu leen ko ŋàññi de yàlla moo ko yónni muy def ndigalu boroomam waa kon yonente bi lan moo ñu war ñun mu xanaa ngelaw li saa yu di dox yóbbante yàlla dina yóbbaale yiw dina yóbbaale sofaan mais mission yàlla lay dox kon yow kay dangay ñaan yàlla bul ko ŋàññi de ne eh yow yàlla nga ñaan bu dee ngelaw li di yóbbaale lu baax na na na la ci sedd moom mi ko yónni bu dee mi ngi yóbbu yóbbante ay sofaan nga làqu ci yàlla mu musal la ci mi kon muslu ak ñaan naka la ñuy ñaanee yonent bi sala bàyyeelu ñu dara bayiwul ku nekk di ràbbal sa bop façon ni ngay waxé dédé nañu dem ci imam muslim an aisha radiallahu anha qaalat kaana sallallahu alayhi wa sallam ida asafat irrihu qaal allahumma inni asaluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilat bi وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به sunu yaay Aysa mu ne maa dégg yonent bi salaa sallam mu ne maa ko dégg bu ngelaw lu am doole ëppee lii lay wax yow suma boroom maa ngi lay ñaan yiwu ngelaw li xayraha maa ngi lay ñaan yiw wi nekk ci biir ngelaw li maa ngi lay ñaan yiw wi tax yàlla yónni ngelaw yiw yooyu yëpp maa ngi la koy ñaan yow suma borom maa ngi làqu nga mus nga musal ma ci ayu ngelaw li ak ay wi nekk ci biir ngelaw li ak ay wi tax nga yónni ngelaw sallallahu alayhi wa sallam wa inda nuzuli wa inda istidaadi al matar aw nuzulihi كان صلى الله عليه وسلم يقول سقيا رحمة لا عذاب وهدم وغر أو يقول صيبا نافعا رواه البخاري بودي جلو لا التوبي مني كماسة ولا دفخين كماسة ندويسويس يونتري جانجلنا لنفوا يدان وح يالنا نكنان لوك جام سقيا رحمه bu mu nekk la dalu mbugal laa azab wa hadm bu mu nekk nandal boo xam day map bu mu nekk nandal boo xam day labal waaw ni ngoog loolu bu taw bi tàmbalee di commencé loolu kàddu yooyu la ci doon àndal yooyu boo ko waxee nga am tiyaaba bu dul jeex وعند النزول بالشدة وبصفة مستمرة كان يقول اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر وبطون الأودية واو bu nee nag taw baa ngi wàcc ànd ak doole ba pare yàgg te te sebet xam nga loolu léeg-léeg mu indi jafe-jafe yonent bi lii la doon wax allahumma xawaalayna yow yàlla na ko sotti sunuy boor bul ko sotti sunu kaw yow sunu boroom na ko sotti ci kaw montagne yi waaw yow sunu boroom na nga ko sotti ci suuf suuf eh, yemoo bi nga xam ne ci la tool yi di nekk nan ko sotti ci xur yi na ko sotti sax ci xur fi gën ci xur yi nga xam ne loolu ndox mi day dajaloo man na fa nekk ba déwén jur gi di ci naan nit ki di ci jëriñ mi ngi noonu fii la ñuy jeexalee li indi ñaan bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne am na benn jumaa mu nekk ci minbar bi fekk nag nawet bi jot na ba taw gëje wàcc nit ñi commencé saalit xam nga doomu aadama moom dafa gaaw a saalit yàlla rek moo mën a nekk ak ñun waaw fi mu doon xutba rek benn kaw kaw dugg ci buntu jàkk ji kaw kaw bu am fulla nag wax ak moom direct eh yonent bi sallallahu boroom eh, jur gaa ngi dee ndox amatul sonn nañu boroom taw wax doléance am waaw bi mu paree rek yonent bi coupé xutba bi rek tàllal loxo boroomam commencé di ko ñaan taw saabatul kiram ñu asamaan bi dafa sew setoon wicc naaj bi tàng jër ñu gis rek niir di dajaloo niir yi di jóge côté bu ne di dajalo ba mu ñuul kuk taw bi commencé di sotte ànd ak doole nag ñu ne keroog ku ñibbi da daw noonu la gontoo ajjuma fanaan yendu samedi fanaan dimanche noonu guddeeg bëccëg lundi mardi mercredi jeudi vendredi mu xëyaat ba heure juma yonent bi yéegaat ci minbar ñëpp a tooy xet di siit mooy xutba kaw-kaw bi ñëwoon semaine ba di ñaan taw mu ne waa tël encore mu wax yonent bi salaa sallam ah borom xam-xam yi tiire fii ay leçon ah, yonent bi nee na imaam buy xutba boo waxee rek amoo juma nga war a xutba bi même bu ci baa di wax sa yoon bu mu nekk ci moom de boo ko ne e noppil yow it doo am juma ndax nit ñi cel mais bu dee imaam imaam nga soxla direct ngay waxal moom bu boobaa yonent bi terewul waay de imaam ngay waxal mooy borom xutba bi mi ngoor ñu ne ngay waxal imaam direct kooku amul problème waa ji dugaal ak yëreem yu tooy eh yonent bi waa ñaanal sa borom mu arrêté taw bi kenn mënatul liggéey euh, biti da kenn mënatul liggéey kenn tul doxi soxlaam nit ñi sonn nañu waaw ndeysaan ñu ne yonente bi muuñ ba ñu seen bëñam yu weex yi wala doomu aadama mi ngoo kii mooy doomu aadama lu lu lu mu yàgg rek mu ne li li li metti na changement la ñu bugg ndeysaan ñu ne yonent bi tàllal loxo bi wax wax zikru bi mi ngi noonu allahumma xawaalayna laa ala yow yàlla sotti ko sunuy côté waaw waaw bu ko sotti sunu kaw na arrêté sotti ko fi ñu ko bëggee ci tool yi ci bérébu garab yi ci xur yi ah mi ngoog ah saabatul kiram ñu ne yonente bi di ñaan sallallahu alayhi wa sallam kii sansu taw bi ñu yëg ne mi ngi wàññeeku mi ngi fa taw bi ne teg kon nag mbokk yi naweta ngi ay occasion kese lay xees ci al azkar lil umur al aarida nañ ci bàyyi xel ñun ñoo moom boo jëfee nga jëriñu amul dara lu jafe mokkal dafa ñëpp a boo kiiwee rek lu xewee rek nga ne ay ci nga daal di wax nga jëriñu waaw nga jëriñu yal nañu yàlla yombalal delluwaat cosaan ci dundu yonent bi loole mu jàngale ñu jël ñu jëfe ko bu ëllëgee ñu am xéewal bu dul jeex allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallayta ala ibrahim